matuma sax jaam yàlla yow yaa ma dénk lii pour ma dimbali jaami yàlla yàlla bu dee yow yaa ma dénk li ma yor mbuusu ndox mi ma yor yow yàlla yàlla na ko si yëkkati si doo sa doole yow yàlla barki Alaaji Fall yow yàlla yal na ko yëkkati sa doole si mbuusu ndox mi ma yor barki Serigne Fall yow yàlla yal na ko yëkkati si mbuusu ndox mi ma yor te day jóg par force parce que yàllaa ma jox jërëjëf yàlla suñu borom na jóg si kaw na jóg si kaw na jóg barkeb Serigne Fallou Mbacke oh, jërëjëf yàlla suñu borom. noo tudd. Ndeye Khady Diop Ndeye Khady noo sant. Diop nga sant doxal dem. ay dem mu jàll. doxal dem amul neexal. na kii suuf. waaye bi fa jot a génn mbaar mi gën a am espace. mbaar bi moo xat moo tax ñu mën a wér. waaw dafa xat quoi lànk rek. na suuna indi kii bi indi suura bi na ñëw waay waru taxawaalu de ku su nekk li nga gérer boo ko gérer rek dara du taxawaalu voilà mais booy faj ñuy dem taxawaalu fee boo wàccee ku nekk def ay affaire loolu amul sens fii la fii fi la mbuur mi di xame fi la fi la xame fi la yàqoo dañ ko meññee rek waaw bu dee ndox kese ñu naan ko bu dee cere kese ñu sotti xorom yuus ndox lekk. dara du xew. dara sa yaram def si xeeru raay bu ñuul kuk. tus du xew. jantal maanaam. toj sa sa mbaarik de. non non man mbaarik. bu ma tojee mbaarik jam ñaata dagg sama loxo sa mbaarik jeex. si laa ko wëlbati ko toj sa yaram def si xeeru raay bu ñuul kuk. tus du xew. Ah, jinne wala dëmm. jinne wala dëmm. jinne wala dëmm jinne wala dëmm dëmm dinañ wan ne ñoom maa leen gën a bànd ñoom jinne yi ak dëmm yëpp su leen neexee ku ma jàpp ci jinne wala dëmm tey jox naa la rendez-vous trois heures dix dëmm yi ak jinne yi tey bépp jinne bu ma jàpp wala bépp dëmm soo amee doole wala nga am xam-xam trois heures dix laay joxe rendez-vous tey te du ma takk gaa laaj du ma jàng benn saar du ma sangoo benn garab wóor na àllaaji fàll bi ma yaakaar du ma sangoo benn garab su ma wàccee du ma takk benn gàllaaj dëpp tous les mondes bali ni masilidi jolidi karamba maake sa karamba abeke karamba ya fenjum ya fenjuma ya fanjum ya li lan ndox kese mooy tas matt mu jóg li lan lu muy jaar fu jóge si biket bi fanaanoo ma ko moo koy yëkkati mu jóg far force maa tey bu yeboo nit fay ma un million wala six millions da koy boole neexal ma mënoo ko nga jël sa xaalis ak li nga fi indi nga ñibbi yaa ngi dégg li may liggéey nii tollootul affaire xaalis. Mm-hmm. dama dem ba tollu si géem pour dimbali nit ñi. Mm-hmm. damay toog sama kër ñaata liggéey laay am ba bokkul ak faj heure moo waree faj damay am problème moo tax chaque semaine trois fois rek laay faj par semaine te chaque jour damay liggéey kon jërëjëf yàlla. Mm-hmm. yàlla mën nga ko am nga doole bi man mënuma dara. man sa ndongo laa man sa jaam laa yow yàlla suñu borom man sa ndongo laa man sa jaam. teel ñu xool jinne la wala dëmm la. dugal naa dugal naa day gaaw. teel amul neexal de bu yemoon deux heures du matin fekk ñu fi lépp ay jinne wala dëmm. jinne jinne maay seen baay dëmm yi maay seen baay jinne wala dëmm. nga leer. jinne wala dëmm. dëmm dëmm fan dëmm ban dëkk nga dëkk. ban dëkk nga dëkk. yaraax. ku jàpp doomu jaamu di yow mi nga jàpp jinne nga wala dëmm dëmm nga dëmm foo dëkk ay dëmm foo dëkk foo dëkk ñaataat nga ko jàpp ñaataat bi muy xale ba tey ban feebar nga def si moom tànk yi laa ak lan ak biir bi lu tax nga téye bi sonal jigéen nga wala góor dina nekk su xasee fu am nga. téeméer yaa ngi dund ba tey yow dëmm bi yaa ngi dund. yaa ngi bi. hey. njaboot ah? punkal mi andi ah, punkal mi andi nga ah. kan laa jàpp punkal mi ban feebar nga si moom ak biir bi kañ lay dëñ tey ñaata jinne la jàpp ñetti jinne ñoo la yeew feebar bi kañ lay dëñ ñaata minute ñetti minute ñetti minute lay dëñ fan la fa feebar bi nekk tànk rocci ko bàyyi ma génn ko. rocci ko. bàyyi ma. rocci ko. mu ngi génn génn mhm. akbar. jërëjëf yàlla suñu borom. allahu akbar. jërëjëf borom. allahu akbar. jërëjëf borom. nga bàyyi doomu jàmbur ji ñaata minute. ñetti minute. ñaata minute. ñetti minute. ñaata dëmm fi ne. ñetti dëmm. ah ñaata dëmm. ñetti dëmm. ay jigéen wala ay góor. ñaar ñu góor benn bu jigéen. ñaar ñu góor benn bu jigéen. jigéen góor ñee mag wala jigéen bi. moo mag lu tax ngeen topp doomu jàmbur ji. bàyyi leen jàmbur. di ngeen ko bàyyi wala doon bàyyi. ne gaaw. xëccoon fourne bi rocc muy set sama jinne yi rocc leen dëmm bi pressé ko xott wala mbàq dëmm bi sama nekku si maa tey ah, bëriñu xala laa su may def ma xalaat ah, may def di xalaat man boobu di jëm naa xaw ma may xalaat é nga gaaw bàyyi doomu jàmbur dëmm bàyyi jàmbur